addis boobu yonent bi dane bisu àjjuma ku jàpp te rafetal njàpp ma daal ñëw ci àjjuma ji farlu ci déglu xutba bi te ne patt bañ a wax dara yàlla daal lay jégal nga dox diggante yaari àjjuma yi loo fi defoon ci bàkkaar yàlla jégal la ko dool la ci ñetti fan mooy jégal la bàkkaaru ñetti fan yooyu jamono nag jàkka yonante bi dañ daan def ay doj yu sew ca suuf rek amutoon sajaada yi nga xam nun moom la ñuy lal mën naam nag kenn sàggan ba di fooyee doj yooyee di fooyee doj ye ba amul yitte ci déglu xutba ba loolu ko def moom nee na doo am tuyaabay ay juma bu dee nun na nga xam ne ay doj nekkul ci jumaa ja waaye nit mën naa yor montaram di ci fo mbaa kursam di ci fo mbaa daal portable am di ca fo lu mel noonu kon bu ñëwee ci ajuma ji toog ñuy xutba moom muy fooye rek lam yor amul soxla ci déglu xutba bi ba tey kooku du am tuyaaba ca julli jumaa ga maanaam moo xañ boppam rek tuyaabay ajuma ja